Cheikh Taalif borom Tektal TV maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax maa ngi lay ziar man la soxna Assu di la ziar ci weer wu tedd bu màgg wii weerub rajab di ci ziar bu baax a baax a baax baax a baax di wax waa Sénégal ne ñoo ngi ci weer wu tedd wu màgg mi weerub rajab waxtu julli juróom wii ñu koy joxe ci la ñu ko sun borom joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la yonent bi visité àjjana. ci la yonent bi visité safara kon weer bu tedd ngi nii ñu tàmbali ko bii ci altine ji commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim yeggalee ko ci alhamdulilahi rabbi alamina muy weeru njëggal muy weeru yërmaande muy weeru jaamu yàlla maanaam boo ci wooree juróom-ñetti fan rek sunu boroom jéggal na la faxasal na la bépp bakkaar benn fan sax boo ko ci wooree weer gu woor gu sell waxoo génnoo duggoo ci wax jëwoo sun boroom jéggal na la say bakkaar muy weeru rajab weer wii ci la yonent bi ba mu visité safara ci la demoon fekk lekk katu riba yi seen biir yi funki néew mel ne daa am leen jam ñu ne lii lan la ñu ne lekk katu riba yi la fekk fa jigéen ñi doon jégg seen jëkkër dem di mooy yàlla mu fekk leen fa kon ñoo ngi ci weer woo xam ne weeru yonent bi la sallallahu alayhi wa di weeru sëñ Fallu Mbàkke sunu sang bi macha allah kon Sénégal dafa am ci lu ñu nekk Cheikh Taalif wax ji bari na accident bi dégg nañ ko coow dégg nañ ko dégg nañu mbiru Sonko ci wax jéeg lépp duma jaar ci tur am na ñu fi taxawoon sax tëgg di wax Sonko sa kasloor nangam nangam nangam nangam waaye dañoo fàtte ne sunu borom subhaanahu wa li mu def ci doomu aadama jiitu na juddoom waaye nag suñu borom subhaanahu wa taala nee na nga ñaan ma ma dollil la day dolli gudd fan suñu borom dalay dindil jàngoro ji nga xam ne tey ba nga juddoo def na ko ci yow man ngaa ñaan di saraxe bu mu dindil la ko weer wu tedd wii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg ku ci saraxe ñi ci am nañu génney sarax même ñi ci ñàkk nañu génney sarax ndax ñoo ngi ci weeru sarax ñoo ngi ci weerub rajab nekk ci weerub sarax nañu sàkk sarax sàkk sarax baax na lool sarax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo bëggoon sarax day fànq sarax day indi jullit bu ne boo xëyee war ngay sàkk sarax sarax bañ la wax waxuñu la nga jël ñaar dërëm jox taali bi waxuñu la nga jël ñaar fukk jox taali bi waxuñu la nga jël sa ñetti sondeel yoo war a génne sarax jox ko taali bi déedéet seede yàlla sarax day am solo sarax dafay nekk lu am solo Cheikh Taalif dafa am tey loo xam ne mu ngi ci dëkk bi ñu gis ko jaxran ku ne nag ñoo ngi wax ci télé yi di wax di wax di wax di wax waaye man soxna astu nëbbatuwuma yàlla dafa def ne wutuma tur nëbbatuwuma mais bëggeel yàlla moo koy def ci nit sama waajur wu góor na mu bëggee woon ab Ablaye wàdd ba mu seey ci moom jeex ci moom nga xam ne lépp lu mu ciy def daka daan defee ci fitna génn leen ku may jur ku may yaakaar dem leen wooteel Ablaye Wade bëgg Ablaye Wade man yàlla def noonu laa bëggee Macky Sall ci sama xol billahi barke maam Cheikh Fall ma yaakaar Macky Sall dama ko bëgg te dama koo bëgg ba pare yërëm ko dama ko yërëm dama koo bëgg ba pare yërëm ko maanaam xale yi buñ ma waxee kaay xool TikTok bi nangam ak nangam lu ñuy wax Macky Sall daal lu tegganewul wala ma gis ko muy wax ci tele day mel ne sama rongoñ ji donc doo ko téye donc euh, mënuñu koo téye ndax bëgg gu ma ko bëgg waaye ah bëgg gi nag du téye ma wax dëgg jamono nag dafa doy waar ndax man damaa jur ay tuut tànk ñuy ndaw ñii ànd ak Macky Sall ndax man góor ñi ndax jigi góor moo gën a jege yaayam ñii ànd ak Macky Sall samay doom yi jigéen ànd ak Sonko mu jaral leen lu nekk ñoom ak Sonko man ma bëgg Macky Sall lool àdduna noonu lay tëddee àdduna noonu lay doxee waaye li ma bëgg Macky Sall moom ma bëgg dama ko bëgg torop Sall ngaari waaye dama koy ñaan mooy mooy président tous les Sénégalais mooy président de la République mooy président tous les Sénégalais Macky Sall na arrêté ñi ma àndal ñu bàyyi fu Sonko defee discours wax coow la ñu indi ko ci am na luy ñëw ci dëkk bi du ma neex du ko neex billaahi wallaahi tallaahi am na luy ñëw ci dëkk bi du man du neex Macky Sall man mii du ma neex ndax mu siba du yem ci bopp borom ndax dama yore njaboot waxoon naa ko dinaa ko waxaat maa ko njëkk a wax maa ko njëkk wax lii nit ñiy wax am na luy xeen ci dëkk beeg am na loo xam ne dina ñëw boo seetloo wax naa ko bala ñuy commencé équipe bañ doon football it Qatar la xooma ma ne am na luy ñëw ci dëkk bi dina naqari ba njëkkee woo Sonko nit nag dina wax gis la muy gis mu des ñaari weer wala ñetti weer wala at loola doog a sotti ñëw dëkk bii nag Macky Sall na bàyyi ku mu wax ne bàyyil na bàyyi ku mu wax ne bàyyil na bàyyi bu nee juge bàyyil na bàyyi bu ne président bàyyi bu wax ne bàyyil na bàyyi billaahi wallaahi tallaahi Sonko mii li ma gis ci moom dafa bari ma ne day doon président de mais li ma gis ci moom bari na bari na ay guddee ngi nii ñu may wan ci Sonko loo xam ne ma la koo wax damay tëdd ba guddi ñu may wan Sonko ñu teg ay loxoom muy dox nii ci kaw asamaan si kon moom ndaw la am na lu ko yàlla may macha allah yàlla na ko yàlla far cat am na lu ko yàlla may li topp ci ginnaawam dug neen mbooloo nag nii mu woote Ablaye Wade sax woote na mbooloo mu ko raw mais ba tey bokkul ba tey bokkul du affaire mbooloo rek Sonko daa woo mbooloo mu ñu génn mais Sonko am na lu ko yàlla may am na lu mu àndal Macky Sall bu bëggee réew mi am jàmm Sénégal yëpp am jàmm na bàyyi lépp sedd moom moo yilif justice bi moo yilif ministre yi moo yilif justice bi mooy président tous les Sénégalais ma ci woo Marème Faye Sall moom it nañu bàyyi lépp sedd nañu bàyyi sonko mu doxal nañu bàyyi sonko mu woote nañu bàyyi sonko mu doxal nañu bàyyi sonko mu def ay élection ku nekk la nga am nga jël senegal am jàmm buñ ko deful billahi nañ am lu ñu réccu barke maam Cheikh Fall takkat benn nit wërta rey sénégalais yépp man nag sama wax du neex benn nit wërta rey sénégalais yépp du tax aji saar benn xale bu jigéen bëgg a tëral bakkani téeméeri sénégalais aji saar mooy kan boofun ma aji saar bokkun aji saar boofun ma aji saar bokkun ma benn xale bu jigéen la bëgg a rey sunu doom yi ba ñu jeex takk bëgg indi fitna sénégal boofun ma aji saar bokkun ñu saar Cheikh Taalif ma dellusiwaat bi ci topp mooy man yàlla dafa def ma xam ñu bari bitim réew ñu may soxla ñuy ay ndaw bitim réew ñu bari ay mag ay ndaw waaye ndaw yooyu ci ëpp nag ñi may soxla bitim réew benn bis dama masa estati Macky Sall ak président France ñu naan ko kuy liggéey ak kay wër di wax mënuñoo yem ma gis benn xale boo xam ne borom moto la mu estati ko ma ne ko yónnee ma video bi waaw waaw Macky Sall kay day liggéey keroog ba ma yónnee vidéo bi ma estati ko mboolem ndaw bu nekk Europe woo na ma téléphone waaye yaay li nga def lan la lan moo tax nga estati Macky Sall ñëpp mere ma maanaam tey vidéo bi ma la yónnee su ma ci déggee ñu ne man maa wax ne damaa bëgg Macky Sall dañ ma mere. da samay doom la lañu tubaarkàlla macha allah ndax ñëpp dañoo dem ba nekk samay doom man ku ma xamanteel da ngay dem ba mel ne maala jur ndax la may yéene samay doom loolu laa lay yéene damay doxal seede yàlla te lu may doxal lépp ci dëgg laa koy teg ci sama cadre liggéey ndax musuma lekk dërëmu nit te génnee lu ma la la ma lay defar lépp benn ci vidéo ba mu jeex tàkk dama lay wan lépp damay video di la wan nga nekk ndakaaru nga nekk bitim réew lépp. xanaa ku ma xam jege ma rek nga dem ba miir ma nag nekk sama doom waa kay bi ma ko defee ñu mere ma tey ku nekk di ma woo maanaam di wax ci Macky Sall Sénégal kii nga xam ne xale bu jigéen bii fi indi coow li dafa indi coow li fekk sénégalais yu sonn sama waajuru jigéen damay wax ak moom daanaka am na téeméeri at mu ne ma Macky Sall yokkul dara. nit ñi ci bëgg a raataloo ndax def lu baax dafa xewi bu njëkkoon dañ daan dem dëkk ba indi sërica sa nijaay la may béy wi gerte ñor ñi tibb may la yónnee la Sénégal yónnee la Dakar gerte yónnee la dugub lu ñu bay dañ la ciy may yónnee la mboq waaye maanaam képp kuy jaay profitoo nga ci benn prix yokk na xawma dëkk bu ñaan kireen la xawma dëkk bi nu mu tudd moo yokk bagage yi pël Fuuta yëpp yokk ñu dem ba Macky Sall ne nañu wàññi ñu wàññi wàññi boobu ñu ne ñu wàññi nag sénégalais yaa ngi bëgg a dee ci biir marché yi ñu ngi bëgg a dee ci biir marché yi ndax bu ñëwee bay jaay kilo dugub sept cent franc kilo mboq quatre cent kilo dugub sept cent franc kilo mboq quatre cent kenn mënatoo la lekk cere sa kër la doy ndax lépp a seer lépp seer maanaam ndugg luñ ci doon jaay fukki dërëm yokk nañ ko di ko jaaye ñaar fukk ak joojit nañ ko wàññi ñu ramassaale ko ci yokk bi rek ñëpp daal di yokk prix yëpp a yokk yokk bi ñu déggoon ñiy jaay diwlin ak ceeb bu ko Macky Sall yokkee ñiy jaay ndugg yokk nañu jën kenn mënatu koo am ndawal gim na nañ ko wàññi kenn wàññiwu ko ndawal tey la gën a seer ndax lépp lu am ci dëkk bi man dañuy ñëw dima ko wax ñi nga xam ne nag ñoo ngi wax par benn benn benn benn for ndax man yàlla def na jëndiwu ma ndawal jëndiwu ma dara suñ borom may na ma sutura goo xam ne maanaam ndawal gi daan gàññ ci sama kër gi waaye nag ñi nga xam ne tey dañuy jënd ñëpp dañuy ñëw dima ko wax te Macky Sall ñi nga xam ne ci quartier bii laa dëkk ànd nañoo moom ba dara dul dara ba tey lijjanti wuñ leen amuñu benn poste buñ leen nommé billaahi seeni doom jàng nañu ba yor diplôme amuñu liggéey amuñu liggéey ñoo ngi toog ci koñ bi kii ci doomam am liggéey doomam bu jigéen ña ngi ko jëlee ci beneen société privée boo xam ne bokkul ci société gouvernement bi Macky Sall ñi ko jiite ñépp a koy yàqal dañ koy yàqal ndax ndaw yi lu ñu gën a xataraayu rek ñàkk liggéey moo leen ko teg ñàkk liggéey moo leen ko teg ndaw ñi Sénégal nag mënoo jox ñëpp liggéey doon président sénégalais moom lu jafe la lu jafe la ndax ñëpp mënoo leen a jox liggéey waaye waroon nañoo organiser nag ba wàññi bu baax ñu naan dañuy def formation moo yor ñi yor seeni bac ci koñ bi tëdd ñu ngi fi ñu ngi fi mën naa laa limul fukki xale yoo xam ne tey ku ci nekk dag nga sa bac yaa ngi ci koñ bii ma dëkk tëdd di nelaw midi nga yeewu 1h sa yaay di la jox a ak reer ak ndékki loolu loo metti loo ndaw ñi ñu ci bari bu ñu ànd ak Sonko looloo leen metti dëkk bu naqaritam metti dëkk bu naqaritam metti ay ministre am ubbi lu ñu kenn buntam kenn lañu ubbi lu buntam ku ci nekk yaa ngi tëj sa kër am na ministre am boo xam ne nag moom ubil na ñëpp buntam Macky Sall yéegaloon na ko fi wàccewaat ko nomewaat ko waaye kooku moom macha allah du ma jaar ci turu kenn waaye ubbil na ñëpp buntam waaye booy woote ci kenn kooku rek lay doon ku ci nekk yaa ngi tëj sa bunt wàcc say vitre voyager ñëw doo xam soxla askan wi lu tax ñu tegle fi nga ne ministre nga lan moo tax ñu tegle fi nga ne ministre la buñ la nommee député rek mbaa ab maire rek too fa nga dëkk faaleetu leen lijjante woo leen comme la ma la doon wax rek sama cassette bee passé ci maire yi doo leen toppatoo. doole leen lijjanti loolu du yàqal Macky Sall ñi ko wër dañ koy yàqal ñun suñu ministre ngi fii ministre de santé mi ngi fii Marie Khemesse Ngom ñoo dëkk benn ko ñetti kër a dox sama digganteeg moom mari Khemesse Ngom ba ko Macky Sall falee ba tey day yéegal ay vitre am teg ay garde corps ci buntu kër gi nit ñi romb di xool garde corps bi ñëw génn taxaw mu ubbi bunt bi gaare ba mu sës mu dugg ku mu romb du la faale du la nuyu Marie Khemesse Ngom nuyuwul kenn faalewul kenn lijjantiwul kenn wuub sàcc yi jooju ñuy wax dañoo sàcc ci ministère yi ba mu corona bi mettee ñi mu dëkkal fii caari azir amul kenn ku mari Khemesse Ngom mësa yëkkati benn sel dugal ko ci këram may ko te moo ne këram kër mari Khemesse Ngom ministre de la sante kër gi mu takkaloo billaahi nga fa dëkk dañ koo abal kër gi kër goo xam ne léegi mu daanu ko fa dëkk dañ ko koo abal te dimbaliwu ko dimbaliwu ko kuy saraxe moom fa nga koy yóbbu te mari xemes ngoom dimbaliwu ko te ñoo taqaloo defaraat na këram bam ne ñoŋ jëndaay otoom yu bees yóbbu doomam yëpp Europe moom mari xemes ngoom du nuyu kenn faalewul kenn man nag ab yaay Fall laa bu am fit ndax kër Sëñ Tuubaa nekk ca wetam maanaam damay taalibe Seere Fall boo xam ne kër Sëñ Tuubaa nekk ca wetam fa jaar fa dugg fa laay génn fu ma rombee ne wub sàccee di liggéey luñu Macky Sall liggéey luñ ko dara Macky Sall ndaw yi nekk bitim réew yëpp ma xam koo wax mu ne Sonko ndaw ñi man xam bitim réew ñëpp ko wax mu ne Sonko ndax ñeneen senegal ñoo leen di téléphoné di leen wax senegal ni méttee ministre yi ubbi seen buntu ndaw yi duñu ministre duñu recevoir ndaw duñu recevoir ndaw am na xale bu ñëw ci man ne ma ministre bii ñu wàcce Matar Ba ministre des sports baagante lu mat juróom benn weer am soxla di ko seet ci rakkam boo xam ne ma nga Europe da doon football tànk bi damm yax yi xawma lan mu dem ñu di ko faj Europe di ko faj Europe bu mënatuñ koo faj ñu di ko laaj pour mu jënd xooma ay prothèse xooma xale ba moog yaayam baagante nañ ca ministère ba juróom benn weer mënuñu koo gis ba xale bi ay mbokkam dañ doon dajalaatu di ket di ket di ket di ket ba ñu daggal ko biyee mu ñëw ma nga ne seen kër toog te bu leen déglu woon dina ko jàppale sax xale bi jéem a wér wala mu toog foofu am lu mu liggéey ak yeneen ministre ak yeneen ministre jàppale ñu kenn am na xale boo xam ne dafa juddu judduwaale tànk bi mënu koo teg benn tànk bi xale bu jigéen bu ndaw bu rafet yaayam sonn lool hôpital Fann fay na fa fay na fa fay na fa fay na fa fay na fa ba fay ci million ak genn wàll te amuñu ko mu des benn sidit fii ci ginnaaw ñu ne ko buñ ko yóbbee France opere ko sidit bi fii dagg mu wàcc ta xale ba baayam ba mu takkee xale ba sénégalais la ab guinéen a ñëw fii takk ko di di football ci club bi takk xale bi guinéen boobu moom ko yóbboo ginee ñu woo ko ci équipe bu Guinée mu ànd ak xale bu jigéen bu dem ba mu demee da ko fa ne ñukk ay mbokkam siis ko may ko ginee guinéen mu taxañ doomam ñibbisi maamam mooy sonn ci xale bi kooku mar xemes nga mun ko mën a defal këyit rek mu dem France pour ñu opérer sidit bi xale bi dox dem nañ këram fukkee ak juróom ñett dëkk moom caare azur mu ne dem leen ci ministère ba toroxal leen ne leen dem leen dañuy ubbi mu ne dem leen ci ministère ba mari xames ngoom kenn mënu koo gis mooy lan mooy lan liggéey lu ñu Macky Sall ay ministre dañ koy yàqal liggéey lu ñu ko du ñëpp nag ñu ci bari nag téeméer junni fukk boo wàññi juróom-ñeent yëpp ubbi lañu seen bunt benn kenn ci ndaw ñi ñu ñëw wax leen seen soxla wala ñu jàmbat leen seen soxla man dëgg rek laay wax faalewuma ay ministre am lijjantuwuma leen toppatoowuma leen man maa ngi sant yàlla Macky Sall nag tey bu ko neexoon coono bi yëpp du ko ci fekk ndax président la waaye lekkul nelawul naanul ndax ay fitna ak i daw ak daw président dañ koy ñaanal nit waaye président coono la te baaxul coono la baaxul loolu bëggoon naa ko cee wax ma demat ci Cheikh Yirim Seck Cheikh Yirim moom waaw dëgg la de dëgg la lim ne ñiy jël lim na ñiy sàcc lim ne li ñuy def lépp moom Cheikh Yérim waaye man de damaa dégg jànguma france jànguma français de alxuraan laa jàng dégg naa nag livre am boobu ñi ko liir nee nañ am na sëtu Sëñ Tuubaa bu mu ci tudd waaye ba mu ko ci tuddee de defe naa laal na laalaake Cheikh Yérim moomu nag. man da seetaan naa ko seen TV bañ ko annoncé muy wax ba jeexal takk am na comme ci wax ci ay societe koo xam ne milliar la société bii ak société bii la créé ni ma xamee seen wow tànk wi laa ko xam billahi barke borom Tuba ci livre Cheikh Yérim boobu kooku xam naa ko bu baax baax a baax ku muy lim bii la am société bii la am li am da koo luubal xam naa ko bu baax xam naa ko bu baax man mii maa ko waxoon ne ko billahi wallahi tàllaahi maa ko waxoon na ko dinga dem ba alal dina la wër déggatuma ko gisatuma ko nag waaye nag maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko jàmm ak wër ak wërsëg waaye Cheikh Yérim na wax boppam na wax boppam sàcc yi muy sàcc ci président yi ci Afrique dem di bind seen livre yi di fen di sàcc moom Cheikh Yérim na ko wax day fen di sàcc di dem ci président yi di sàcc di fen livre am bi daa xam ne nguur day jeex la ca des bareetul mun a xaaral ma bind livre bi Cheikh Yérim bala muy wax sàcc na wax sàcc boppam a tant que journaliste bëgg fee nekk milliardaire moo dàq sàcc ñëpp. billay walay talaxis ñaari kër a ndox sama diggante kër gi muy tabaxal jabaram kër gi waa bi yëpp ku romb danaan kër gi ñaari kër a ndox sama diggante ak moom journaliste bëgg na ñoo ma wan ko ko nga fato yóbbu kër gi dañ naan Cheikh dañ naan kër gi waa kan moo moom kër gi ndax kër gi lu ñu tabax neexu leen ñu tojaat ab immeuble la boo xam dañuy tabax tey def ca lu bari ñu tojaat ay camion camion suuf béton ak suuf ak béton ni mu yokkee tanu suuf nga xam ne da ko doon jënd tey juróom benn junni muy benn bu mag bi ñëw wàccel la ko bu ndaw bi nga am ko ñeenti junni boo amul fukki junni ak léegi doo ko am tonu ciment nga ci fukki junni ak juróom ñu ñu dajaloon lañu tabaxee sax ba bëgg a tabax teg nañ ko ci suuf di xaaraat barki démb la ma benn entrepreneur mag ne ma tee tabax ndax day yokk wàdd yeggalee rek maa nga tabax day yokk seex yi dama dàq sàcc ñëpp ak yeneen ni kër kër kër mu am boo demee yeen kër gëm fa am tubaar kàlla ay 500 mètres carrés Dakar googu am na fi ay 500 mètres carrés seex Yérim moom na wane alalam ba pare fu ko jëlee ab journaliste la waaw journaliste am na salaire am na fay baax na mën nga am sa wërsëg mais moom dépassé na lépp lépp la zone Cheikh Yérim dépassé Cheikh Yérim moo dàq sàcc ñëpp sàcc la journaliste bu bëgg na ñoo moo wan ko kër Cheikh Yérim caare azir saf ko kër gi muy tabaxal jabaram koñ bi yëpp ko wax dañ doon jël sax ci kër gi bay tabax ci mbedd mi ma woo chef de quartier ba mu ñëw ma ne ko kaay mu ñëw ma ne ko mbedd mii ñu ngi fi ñu ngi koy jël lu bari chef de quartier bi dindi leen ko ñu delloowaat ko paa bi yëpp génn ma woo leen ñu ne leen dindi leen ko ñu delloowaat ko ndax mbedd mi la bëggoon a jël defe nañ caare asi ñi fi dëkk dañoo tëj seen bunt ñëpp nelaw nañu man maay ab yaay faal boo xam ne du ma nelaw guddi ma nelaw bëccëg maa ngi ci mbedd yi guddi ak bëccëg ndax damay liggéey ci guddi gi di xool di xam li xew ñu jóge géej lool ma di fa baagante di dama ko ñëw di liggéey sama liggéey di xam li xew ci koñ bi seex Yérim bëggoon a sàcc suñu koñ bi tabax ko moo daq sàcc ñëpp moom fu ñëwee sàccee nañ ne ko Cheikh Yérim wuub sàccee sàcc la moom sàcc bu bon la kon moom amul lu muy wax diw sàcc na ci société bi diw sàcc na ci société bee diw sàcc na ci société bële moom sàcc la te bu seetloo ginnaaw warta jiñ kenn lu bon moom na xool fu mu jaar luñ koy taqal taqal ko doomam moo tax seex Yérim moom bu laale sëtu Sëñ Tuubaa bàyyi nañ ko Dame Mbodj Dame Mbodj ba waxee rek ñun la suñu xol sedd guy ñu defal ñu ci glace te naa nañu galaas barke borom tubaa